ñu ngi nii fekk boog suñu nijaay Cheikh Mouhamadul Bachir suñu nijaay Cheikh Aboubacar Serigne Mbaye eh, ak magam Cheikh Alhaaj Mouhamad Zeynab Cheikh Jéeri ak mboolem yi suñu doom yi teew ak suñu rak di ndokkeel eh, jamaa bi nga xam ne nii ñoom ñoo sos eh, jotaay bi nga xam ne xalqa la rek Euh, épisode la ci xalaqaat mawlidi nabi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne dañoo wax ne Medina moom bu weer wi teroo bu weer wi jeexee rek ñu ngi ci gàmm guddi bés bu mag bi ak bésab tey bi bële moo koy jëmbal bii moo koy tëj waaye xarakaat yeeg sëkkanaat yi yépp ci Medina mu ngi feetu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga xam ne moom Cheikh Ibrahim radiallahu anhu uh, mbëggeelam lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom <coughs> moo tax weer wi di weeram bés yi di bésam juddu bi di feetam bu nga xam ne daf ci ndokkeel mbooleem ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa ñi ngi ndokkeel mbooleem umma bi ci weer wi di ndokkeel suñu bopp la bàyyi wax fa ahlan wa fa ahlan bi shahrin qad ata bil muxassasi Muhammad Abdillahi Sirril Mumahasi ba wax ne fa ahlan wa sahlan marhaban thumma marhaban mata jaana almaxsuusu sirri wa muxlisi ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy mbóotam mooy ki nga xam ne nii ki koy xettali uhanni nafsi thumma yowmi wa shahrahu kada baladan qad massahu xayru axmusi maa ngi ndokkeel mu ne sama bopp maa ngi ndokkeel bés bi nga xam ne mooy bési juddu bi maa ngi ndokkeel weer wi maa ngi ndokkeel dëkk bi nga xam ne muy euh, mamlakat arabiya saoudia nga xam ne gën ci tënk laal na ko muy tënk bi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi ndokkeel ñooñu ñëpp mu ngi ndokkeel suñu bopp bu commencé xasida bi nag daaniya min tadkaari salma وتندمي فإن جمال الهاشمي متردمي uslub la boo xam ne arab daf koo di wax ak ñaar ñoo xam ne newuñ fi waaye nit léeg-léeg mu ànd ak ñaar léeg-léeg tim nga wax ak ñaar ñoo xam ne nii nekkuñ fi yaa leen amal yow ci sa waxtaan ak ci sa bopp waaye ñaar ñooñu ñuñ mën rek mu ngi leen di wax ne na fàttaliku ku dem ay turi jigéen la waaye dafay mel ni euh, ramz la rek boo xam ne nii leneen lu nit war a bëgg na nga xamee ne yonent bi sallallahu Eh? bam rañaanee fa inna madiix alhaashimi fa inna jamaal alhaashimi tey mu taraddami mooy sama delluwaay mooy la nga xam ne mooy la ma mooy lu lu ma war a mottali fii nag duut ne tagg yonentu lay mottali moom waaye xaalam moom ci yonent bi moom lay mottali waaye waxoon na ca commencement ba diwaan bi ne xam nga antara ma waxoon ne hal gaadara shucaraau min mutaraddami am hal arafta daara baada tawahumi moom daf doon wax ne ndax shucaraaw yi ndax waykat yi bàyyi nañ lu des lu nit war a mottali lu nit war a wax maanaam li ñu wax li ñu waroon a wax yëpp ñi ñu waroon a wax wax nañ ko la keneen ki wax maa araana naqulu illaa muaadan kon ay tekraar rek la ñuy waxati loolu la antar waxoon loolu bu fekkee wér na ñoom ci seen wéy bàyyi ne yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam taggam moom ba léegi dafa des lu ñu war a wax naka la ko wax ci kaman raama darkal wasfi aydan qad aksaru walakinnahum qad gaajaru mutaraddama dafa waxoon ne jot ko moom ci mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi mel ni bëgg a delloo démb bi paase waaye mu ngi mel ni ku bëgg a jot dayo ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne taggkat yëpp tagg nañ ko waaye ba léegi bàyyi nañ fi lu ñu war a wax bàyyi nañ fi lu ñu war a wax maanaam duñ wax mukk nag ci yonent bi ngëneel goo xam ne du ne yonent bi am na ko duñ wax mukk ci yonent bi ngëneel goo xam ne duñ ne yàlla tabaraka wa taala taggee na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la bàyyi waxoon moo tax feneen mu ne ne fuulun mafailun fuulun mafailun mada dahri laa yaati bi xaqika maaxiya walakina madxal maadixina tashafuun fa yashfau li taa li ajli maqaaliya gannaaw bu mu jiitalee ne qadasna alayhi rabbuna bi kalaamihi فماذا عسى برهام يصبح حاكيا فعول مفاعل فعول مفاعل مدى الدهر لا يأتي حقك ماحيا يا آه، يالله تبارك وتعالى تقنا يونت على محمد صلى الله عليه وسلم يالله جيخلنا تق يونت بي صلى الله عليه وسلم بي تق جيكو يالله جيخلنا تقم تي وإنك لعلى خلق عظيم تقنا كو تق سريرام لقد جاء ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما تقنكن آه، خم تغنا جيكوم تغنا اي وخم تغنا موم لان جمالا في الوجود باسره اذا ظهر المحبوب في الحين ينكتم فالأنوار والألوان والرقص والغناء تبصرهم لولا العمى حسن الشيم taarab yonent yàlla Muhammad bàyyi ne bu taarab soppe bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñee taar yooyu yëpp dafay nëbbatu dootul feeñ moo tax mu ne leer yeeg fecc yeeg wëy yeeg yëpp bu fekkutoon ne xol yi bët yi moo lëndëm bët yi moo gumba kon yooyu yëpp lu ci jug yonentu la lay gis loo loolu muy firi bu fekkee leer bu jugee bu yonentu feeñee leer yonentu la lay gisloo est-ce que da dem ci leer bàyyi yonentu sallallahu alayhi wa sallam wala da ngay dem ci yonentu bi bu fekkee dangaa ngaa gis fecckat yi di bànneexoo fecc bu sa xol leeroon fecc googu yonentu la lay gisloo kon loolu du la fecc loo daf lay soxla loo walis fecc bu fekkee ne wëy yi boo déggee wëy yi ñeneen ñaa koy dégg di ko bànneexoo yow boo déggee way yi yow yonentu la lay fàttali sallallahu alayhi wa kon dootoo tal way yooyu lim la fàttali loolu ngay tal wàlliyu bi bëggoon na yàlla bëgg yàlla ba dégg kuy jaay rek kuy jaay zaatar zaatar ñoom Moustapha Cissé ñu nekkoon Kaahira xam nañ lan la mu koy jaay di wax ne zaatar bëri zaatar bëri moom zaatar bëri la doon jaay moom bëgg gi bëgg yàlla ba waa ji naan zaatar bëri zaatar bëri moom déggatul zaatar bëri moom mu ngi dégg sa tara birri sa tara birri ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg ak yow ci leer yi yonentu la lay bu gaa kaf seen kaf yi yow yonentu ngay fàttaliku bu wéy di neex yonentu bi sallallahu ngay fàttaliku la ko dal moom Cheikh Ibrahim ba ne awal mustafa al xaalata mutmari fa kulli wa juz'i fa huwa sirri wa mazhari إذا ضاء ضوء البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرأة ومنظري وأذكره عند الأغاني وإذ حلا مذاق فهو أمري مذاقي ومسكري إذا ضاء ضوء البدر بلير وير ويلير باي من من ما فاتلي كو يرنتي صلى الله عليه وسلم nga xamne moy ciosani leer boba weeri leer wi leer man dootut ma jël daf may yóbbu ci ki nga xam ne moom la ma fàttali mu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba dootuma gis ne weer wi leer na dama naan ko cëm da ngay leer leer lu waaye ki leer mooy yonent bi te ci di neex neex lu ma ne ko neexoo ki neex mooy yonent bi woy di neex neex lu ma ne ko neexoo ki neex mooy yonent bi waa ji gis fii jaay zaxtar bari yi looloo ko jot waa ji daf ne zaxtar bari lay jaay moom mu déggee ci di baat bii niru ne moom pee yàlla bi moo koy waxee ne yàlla mooy wax ne sax yow doxal taraa mbir yi nga gis sama mbaax man yàlla gis nga mbir bu lay fàttali mbir bu fekkee lim lay fàttali mooy li màgg du la yóbbu ci li ci li la koy fàttali de daf lay yóbbu ci li nga fàttaliku daf lay yóbbu ci li nga fàttaliku moo tax kële ba ko liy fàttalikoo yàlla tabaaraka wa taala tanut kiy jaay tal li muy jaay jëm yàlla gi muy fatali moom lay moom lay fatali non la baye mel wa inna jamalan wa inna jamalan fil wujudi bi asrihi idha zahara al mahbub fi hin yënkatin bépp tar bu meuna feñ ci tar nek gi rek bu tar yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi feñe tar bobu da fay da fay làqatu moy nak فإن جمال الحاشم هاشمي متردمي caar yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom laa am fi ma war a waxee samay wax foofu laa am fu may wax ndax xalaatam yépp neewoon na jullu fikri fi maali ahmad al jammin nawaali sama mboolee mi xalam sama mboolee mi xalaat ممكن ngi ci màggaay yenent bi sallallahu alayhi فتيك فتيك ما سباني يغيدها غور المعالي آخذات بمجمعين على جالس المختارة بالحب معرضا عن الغير تاتي lil mataalibi min fawqi jékkiyaalee léeg yonent bi sallallahu alayhi wa leneen bàyyi boobaa càkkuteef yépp ñëwal la yow jugee jugee ca kaw iza atraba al aqwaam bu fekkee ne dafa kontaanloo sigreloo gaañi malhan foowaay mooy lu lay lu lay lu lay soxlaal wëlis leneen loolu mooy lëxu lu lay soxlaal wëlis dëgg bàyyi na bu fekkee ñeneen ñi fekkee gaañi dafa am lu leen di soxlaal muy fo wa matmaun nga xam ne moom la yàlla teddal ndax yàlla teddal na ko teddal ko ci sosu teddal ko ci teddal ay baayam teddal ko ci teddal ay maamam teddal ko ci teddal sosuwaayam teddal ko ci teddal njubam teddal ko ci teddal jikkoom teddal ko ci teddal waxam teddal ko ci teddal alquran bi nga xam ne moom la ko jox teddal ko ci teddal umma bi nga xam ne nii moom la ko yàlla jox teddal na ko ba teddal doomi aadama ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla teddal ba teddal doomi aadama ne wa laqad karamna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa faddalnaahum ala kasiirin mimman xalaqnaa koy xenu ngir mbóot moomu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo moom muy mbootam xenu googu kooku la yàlla teddal dëgg-dëgg muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne bu amee kuy sigréwu di kontaan ci fàttaliku keneen man maa ngi kontaan ci fàttaliku yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne jëli si ida axlu jamaalu muhammadin bu ma wéetee sama wéttal ki may jékki xaaleeg bàyyi mu ne bu ma wéetee ki may jékki xaaleeg taari yoon ci yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam xabibu ilahil aalamina ki nga xam ne mooy soppeeb yàllaay aalam bi al muazzami yàlla jooju ñu màggal nga xam ne nag li mu wax ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yépp yonent bi mu ngi ko xeeyoo ngir ne moom mooy soppeeb yàlla tabaraka wa taala fa abdun jaam nakiraal na ko comme la waxoon te nakara maarufan lada kulli aarifin wa ma urifa almuxtaaru illa bi nafsihi tanakkara maarufan lada kulli aarifin dafa lëbu waaye fecceeku ci képp ku xam waaye xameewuñ ko moom yonent bi sallallahu alayhi lu may ki nga xam ne mooy jëmmi yonent bi sallallahu alayhi moom rekk a xamale yonent bi sallallahu kon daf koo nëkkiraal ngir màggaay yi mbir mi daf koo te jël laa jaam boo xam ne te jël laa feeñ na sayidal kawni di sang nekk yépp yaalahu xéem na ma ko te xayyara gëlëm na fii ci moom xaatirul mu te jëm ji mi xaatiri ki nga xam ne mu ngi ñurum tub bàyyi li muy yëg ci yonent bi sallallahu alayhi wa lépp waxu ko lépp waxu wut lépp it mënu koo wax lépp ma mënuñ koo wax ak ñëpp moo tax mu ne daf doon wax mu ne jaam bu yàlla màggal màggal ko màggal ko màggal ko ba ay noonam di tiit di ko ragal ci dox yi ñaari weer loolu mu ne bu taxutoo nag yenent bi moo ñu ko wax loolu ñun mënuñ koo dégg sax kon jaam boobu màggaayam kenn xamul fu mu waaye mu feeñ nag nekk di sangi mbooleem lépp lu yàlla tabaraka wa taala comme cangam gi mu ko jëlee ci nekk jaamu yàlla tabaraka wa taala comme ni mu wax ne ana sayidul qawmi yowmal qiyamati man maay sangi gaañ yowmal qiyamati ana sayidu di aadama wala faxra maay sangi doomi aadama yëpp te duuma duuma suma puukare bàyyi na lu tax mooy yonent bi li mu puukare woo mooy nekk jaam lu tax muy puukare woo nekk jaam ndax jaam la ci péeb yàlla bi ci péeb jaam yi la nekkee sang fa muy nekkee jaam moo ko gënal ndax mooy nekkam ak péeb boromam tabaraka wa taala xawaariquhu ay xarbaaxam yuyi dana lottuloo al awaalima nekk yépp nag xasruha ak limam mbooleem nekk ji ci àddina ak addina yi nga xamut yi nga xam ne fukki aalam ak juróom benn am nañu yi nga gis ak yi nga gisul aalam yooyu yëpp lottu nañ ci tënk sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp xarbaax yooyu maanasabat méngoowut xadran dayo li taaha ñeel taaha mu yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al muqaddami kuñ jiital ki nga xam ne yàlla def koo jiital ci yonent yëpp doonte moom moo mujj لولا بخيري وحنا لو ناسبت لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم من بفكر نب آه، كاوتي في يونان تبي صلى الله عليه وسلم كاوتي في دانيو مينغو دايو يونان تبي صلى الله عليه وسلم kon turi muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam oo ko boo ooyee turi muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam mën naa dekkal mën naa dekkal kër yi nga xam ne nii dañoo ràpp waaye mën naa dekkal yax yi nga xam ne tim dañoo dañoo funux mën naa dekkal yax yi nga xam ne dañoo funux te xam nañ ne ànd ak loolu yëpp kaawteef yi àggut ci dayoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye turi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jugee woon ci ku ko mën a tudd dëgg-dëgg ak ku ko xam boobaa dana ci mën a dekkal moom it dafa am benn baay dafay nettali ci manaasikul xaj ji benn waay boo xam ne daf doon weddi tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dégg ku naan yaa Muhammad mu ne waa ji Muhammad mi ngay oon yi munu dara ndax man sama mbaam mi boo mbaam maa ngi nii bu ma ko dóor suma xet ko dóoree mbaam mi mu jug te bu ma ne yaa Muhammad du tax mbaam mi jug waa ji ne ko li nga wax tegtalewut li nga bëgg a wax ndax yow gëm nga ne yaa Allahu man na dara te boo waxoon yaa Allahu du sax tax sa mbaam mi jug est ce que yow yaa mënut dara ci yaa Allahu comme ni nga mënee dara ci yaa Muhammadu yow ci sa xet gi ci nga man dara waaye boo waxoon yaa Allahu mbaam mi jugut est ce que dafa tegtale ne yow yaa Allahu mën ta mbaam mi. boo ko waxoon mbaam mi jugub te yaa allahu mën naa ekkati lu ëpp mbaam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne law araftumullah xaqa maarifatihi la zalatil jibalu bi duaikum bu ngeen xamoon yàlla dëgg dëgg xam doj yi danañ toxu sax ci seen ñaan kon waa ji kay moom moo manut mënta soppandiku ci yaa allahu rek waaye muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ba tey turam donte ay kawteefam méngoowut ak dayoom ni waaye ànd ak loolu yëpp turam ku ko tudd dëgg-dëgg tudd loolu indi ne naa sauver nit ci àddina ak ci àllaaxira waaye bàyyi daf ñuy jàngal ne kawteef yonent bi lu mu bëri sallallahu alayhi wa sallam sax àggut ci dayob yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ne ba yonent bi feeñee ba léegi bàyyi ne luy feeñ ñëpp ci ay kawteef kawteef yonent bi ndax wa kulluhum li Busayri wax wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min albahri aw rashfan min addiyami wa kullu ayin atal rusulu lkiramu biha fa innama tasalat min nuurihi bihimu ñoom ñëpp ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ sukkandiku ay seeni kawteef kawteef yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke yonent bi la isa doon dekkalee uh, way deeñi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ dugalee ibrahima ci safara safara def ko dara ci barke yonent bi la daawuda doon mooñee uh, weñ gu ñuul ba mel ni sunguf ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la suleymaan doon tukkee ak ci nga ak yonni ngelawam tukki ñaari weer ci benn kafa xippi loolu yëpp ci barke yonent bi la moo tax bi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñee loolu ñoom ñi nga xam ne yonent yëpp dañ koo amoon muy seen yëpp yàlla daf koo def mu ñeexal xeeti yonent bi te duut sax xar baax waaye nit kese moo koy def daawuda lam doon def weñ gu ñuul ab yonentam yàlla la jamonoom loolu lottuloon na ñoom jamonoom yëpp tey jii xeeti yonent bi nit ku gëmul yàlla sax mu ngi koy def waaye ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañ ko doon defee suleymaan nañ doon tukkee ci ay kafa kippi loo xam ne tukki ñaari weer la avion yaa ngi koy tukki tey ci feeñ ak yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp yàlla may ko xeeti yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñaa ngi dugg ci safara am ay ngànnaa yoo xam ne buñ duggee ci safara sax leen lakk waaye ci barke feeñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima dugal nañ ko ci safara lakk ko dugal nañ ci safara lakk ko Seydina Omar ne maa nañ ma ko wan dund naa ba gis ki nga xam ne ci xeeti yonente bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla mayoon Ibrahima alayhi salaam muy kaawteefam moom yàlla may na ko ko muy karaamaam ñu dugal ko ci safara te safara lakkut ko moo tax ñoom seeni i kaawteef yépp kaawteef yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam kaawteefam bàyyi na nag kenn mënu koo lim waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam nga xam ne dundi nit kese koo xam ne ni juddu ci digg màkk googu digg lëndëm googu nga xam ne foofu la juddoo rek jub kocc jublu yàlla tabaraka wa taala loolu sax xarbaax la doonte xarbaax la goo xam ne nii daf doon fondement ak yonentu ndax boobu yonentam gi ñëwagut muñ gi nga xam ne moom la ko yàlla mayoon mu man koo muñ loolu xar baax la boo xam ne nii kenn amul jikko rafet yi nga xam ne moom la ko yàlla mayoon xar baax la boo xam ne kenn mënu ko moo tax dafa am ñu doon laajte ay dafa am benn benn woykat kenn indien boo xam ne taaxuur lañ koy wax mu nekk koo xam ne ci woykat yu mag yi ñu xam ci àddina ci la bokk dafa am ku ko laajoon ne ko maanaam seen diine baraham bi xam ne mooy diine yi nga xam ne ay jikko yu rafet ci ay xalaat yu baax ci ay tolérance mu ngi ci bëgg doone aadama mu ngi ci nite mu ngi ci lu tax diine jooju tasaaroowut am ak ni jikko yi ci nekk yépp yu baax yi ci nekk mu taxaw ne waa ji loolu li ko waral mooy ne jikko yooyu dañ koo wax ba pare te am jëmm joo xam ne dafa taxaw jëmmal jikko yooyu yonent Yàlla Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam boo gisee moom jikkoom yi sallallahu alayhi wa sallam màgg-màgg gi màgg waaye nag mu nekk koo xam ne jikkoom yi ku ko gis man cee jubee jikko yëpp moom daf koo jëmmal ba mu nekk jëmm joo xam ne nii danga ko mën a gis la ko sayyidatuna Aïcha bañ ko laajee kayfa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaana xuluqul quran نيرنتي على محمد صلى الله عليه وسلم ملون من جيكم القران لا وون لولو لي القران جي دي واخ تي اي مباخ بو داجي يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم داف كوي تاري di ko doxee di ko waxee di jaar ci jaar waay ñàkk yoo xam ne nii benn jaam jaaru ci ba jaar ci takk biiram bilaal ne daan nañ toog ñaari weer néeg yoon ci àll muhammad sallallahu alayhi wa sallam dara du fa tàkk dara loo xam ne nii lekk loo xam ne fees na poqataani bilaal nekkul ci néegam yonent bi sallallahu alayhi wa boobu muñ kenn mas koo gis ba yonent bi sallallahu alayhi wa fekkee dafa oote ne dundale leen te am yàlla indil ko alali àddina bu fekkoon tuuti la am joxe ko nit mën naa am tuuti joxe ko parce que dafa jàpp ne lii mënta faj soxlaam bu koy joxe di ñaan yàlla pour may ko lu mën a faj soxlaam waaye i àddina yëpp ñëwal ko mu ragal a fanaan guddi ba bët set te fekk alal ji tasaareewu ko kooku bu wax ne dundale leen kooku nekk na exemple bu wér ci dundaleen koo xam ne dafa oote ne maandu leen kuñ def nangam dañ laa war a gëtën commencé ci law anna fatimata binta muhammadin sarakat la qataatu yadaha bu fekkoon ne fatimatu doomi muhammad dafa sàcc ma dagg loxoom ab quraychin ci moom di mbokkam bu jege sàcc ñu ne kenn warta dagg loxoom ndax ci sang yi la bokk تكن يروت وحي النبي صلى الله عليه وسلم انا كي دون داك لوخوم ندخ خم ني يروت النبي صلى الله عليه وسلم اوتي لوي اوتي ديغل يالا ندخ لي سيدتنا عائشه رضي الله عنها واخني ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الامرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما ما في نيو تان يونتبي صلى الله عليه وسلم ديغنت نياري مير lu may la ca gën a yomb lay tànn lu may bañ koy bu fekkee ne la ci gën a yomb dafay nekk bàkkaar bu nekkee bàkkaar rek mu nekk ki ko gën a sori moo tax ci sàcc te lekk ab sang ñi ne waruñoo dagg loxoom ñi ne kenn waru ko koo ñemee wax lu may usaamata ibnu zeydin usaamata ibnu zeydin kan la usaamata doomi zeyd zeyd kan la mbaa yàlla ab yonent sallallahu alayhi wa خديجة موكم ماي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي غوريلكو بغوكو دوموكو مانغا دومو نيت وايتو اغي تي ديم با اغي تي دومو ينتبي صلى الله عليه وسلم اك زيد باغا خامني دنجكاي واخ زيد بن محمد باغا خامني ينتبي بغوكو بغ دومام اسامه ba nga xam ne mu amee lu kenn ñemewut a wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalaatuñ mbokki deretam yi ko jege waaye ki wax ne mbokkoo dëgg-dëgg mooy mbokkoog yàlla kooku moo mën a mbokkoog Zeyd def ko doom def baayam doom bëgg ko ba ba amee kaa boo xam ne benn waa Quraysh ñemew ko ko wax dañ ne Usaama rek moo ko ko ñemee wax loolu comme li doon wax ne mbokkoo dëgg-dëgg mbokkoog yàlla loolu feeñal na ko ci loolu waaye Usaama ba ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax ne ko bu fekkoon ne Fatima tu doomi Muhammad dafa sàcc kon Muhammad kon ma dagg loxoom kon kooku mu ootee maandu moo ci gën a moo tax benn waaye na wax ko ne ko maandu mu ne ko kan mooy maandu mu ootee njub moom moo gën a jub jaam yépp ba ootee fegu moom moo gën a fegu ñépp yàlla ba mu ko indee pour mu nekk ku ñu war a roy amul benn nit boo xam ne ci àddina xam nañ dundam biiram ak biteem ak fanaanam ak endalam ak naka lay nelawee nettal nañ la ba nettal la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay la ba nettal la bu eewoo guddi naka lay def nettal la ba nettali naka lay jullee guddi ibnu abbas fanaan na ci néegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bés bi nga xamee ne Maymuna ndey taxam la moo aye mu ne damay fanaan ci néeg bi pour bugg a xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka lay dundalee guddi loolu yépp amul dara loo xam ne réer na ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi dañuy wax ne nit ki du nekk ab yonentu ci aw ñoñam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na yonentu ci aw ñoñam ndax ku ko njëkk a gëm xadijatu jabaram moo ko njëkk a gëm seydna ali yaram moo ko njëkk a gëm seydna aboubacar siddiq xaritam di mbokkam di àndandooram di ndendam bokk moom benn xabila moo ko njëkk a gëm ci mag ñi kon nekk na ab yonantu <clears throat> ci biiri aw nitam donte it ci biir biiri aw nitam lañ ko weddee waaye màggaayam yépp aw nitam ñoo ko nettali soxnaam yi ku nekk école nga woon boo xam ne nii dañuy jàngee ci yow dund yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ci kenn ci ñoom boo xam ne am na bés boo xam ne dafa am lu mu war a nëbbu amul complexe ci wax yonent sallallahu alayhi wa sallam naka la dundee naka lay yërëm boo xam ne sax dafa taq ndoxam mëniyu dégg nga mu fañete ko rek julli loolu nettali nañ ko naka la fanaanee guddi ak jabaram a ngi tëdd nii dend moom tëdd ci kanamam muy julli guddeem loolu yëpp mën nañ cee xamee ne ndeke nit ñi sax mën nañoo dugg xalwa ci place boo xam ne sax jigéen ñaa nga fa loolu yëpp loolu nag màggaay yonent bi la sallallahu alayhi wa waaye commencé wutoon foofu ndax gis nañ ko ci xaaral Hiraa mu nekk fa di dundal ay ñeent fukki guddi di jaamu boromam loolu nga xam ne bokk na ci dëgg-dëgg ci euh, euh, ci xar baaxam yi nga xam ne nii yàlla may na ko ko nga xam ne ba léegi euh, boo demee foofu da nga xéemu naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënoon a bàggante ci. Eh, ci place yi muñ gi nga xamne ne la ko yalla jox ak dogu bi nga xamne ne la ko yalla jox ba nga xamne ulul asmi mina rusuli ñom ñepp moy seen sang ndax lim muñ ci ñom kenn ci ñom muñ ko lam bayam abu Talibin, bam ko oye di wax sa bokk yi li ñi wax mu ne ko buñ tegon jant bi ci sama ndeyjoor bi may ñi tek wi ci sama chamoy bi mu may lak ngir ma bayyi li nga xamne ne la ma yalla yoni du ko bàyyi lu may yàlla feeñal na ko walla ma dee njëkk loolu kooku amut ko ko koo xam ne ni àgg na ci bëgg yàlla tabaraka wa taala fu mel noonu moo tax ay kawteef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na ànd ak loolu kawteef yi liñ bëri bari bëri nga xam ne buñ doon wax ci kawteef yi loolu rek daf ñuy jël ci guddi mën a jéggaleem rek mbokkam yi nga xam ne lañ ko lor fukki at ak ñett ba mu ñëwee ba yàlla dimbale ko ci seen kanam jéggal gi leen jéggal ak kersa gi nga xam ne mu ko am ci loolu loolu lépp ànd ak loolu yëpp loolu yëpp amut lenn loo xam ne nii àgg na ci wàllu tolluwaayi màggaayi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax màggaayam yàlla rek moo ko xam tabaraka wa taala moo tax yàlla màggal ko màggal lépp loo xam ne ni dafa aju ci moom بماغل دك بمجدو لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فيا قمنا ني فوفلا جدو يالا ماغال لاكو وري ماغايام لول ييب بور واني ماغاي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم موتاخ كفا ما اتى للانبياء من خوارق دوينا ليغا خمنا ديكلنا للانبياء نيال يونت من خوارق تي اي قربا يونت لي ليب لولن نيوال تي اي قربا دوينا كاوتيف te loolu yëpp nag kaawtee fi yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom ñu ñëpp yonent bi mooy seen yonent wa iz akhadha allahu mithaqa nabiyina lama ataytukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minuna bi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin yonent yëpp pour xamal ne yonent bi naka la màggee ci yàlla tabaraka wa taala yàlla jël na kaawteef ci mbooleem yonent yi ne leen ba ma leen joxee téere jox leen xikma bu leen yonentu sallallahu alayhi wa di dëggal li nga xam ne moom ngeen di keexoon ndax da ngeen gëm yonentu boobu ñoom ñëpp ñu ne danañ gëm yonentu boobu yàlla ne leen ñoom ñëpp ñu signé ne ñoom ñëpp nangu nañ ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy seen njiit te ñoom ñëpp ku ci fekk ci jamonoom tim da nga ànd ak moom da ko topp nangu ne moom mooy sa yonent kon moo tax ñoom ñëpp seeni kawteef dañ doon ñëw rek di tàllal yoon wi pour yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ne ak li saxaaba yi gis ci mbooleem malxami ci mbooleem xare yi li saxaaba yi gis ci ay kawtéef yonent bi bàyyi na téeméeri junneeg ñaar ci junne yi saxaaba ak ñenent ñi nga xam ne balaa dem ci xajjatul wadaa bi nga xam ne ci la tàggoo xeet wi nga xam ne xutba boobu mu def lam làmboo ci ay kawtéef jamono mënut koo lim ndax saxaaba yi nee nañ bés boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xutba bi mu def ca Arafat ca jabalul Arafat ñu koy wax jabalul rahmati bés boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am dara loo xam ne war naa xew ëllëg lu may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na saxaaba yi nekk ku jàpp jàpp nga ku fàtte fàtte nga ñu ne gannaaw xutba boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def. lépp lu xeweti ci xew-xew yu mag yi rek ñu fàttaliku ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon kon li Baay de ay kaawteefam jamono lépp jamono tënkut lépp ndax saxaaba yi sax tënkuñ lépp ànd ak ne saxaaba yi téeméeri junney saxaaba ak ñaar fukki junney saxaaba ak ñeneen ci saxaaba ñeenti junne ñoom ñëpp ku ci nekk gis nga ci yonent bi kaawtee boo xam ne bokkut ak kaawtee bi nga xam ne moom la sa morom gis waaye kaawtee yëpp dem nañ mu des kaawtee bi nga xam ne lu jamono dem dem kaawtee boobu dafay gën a bees muy kaawtee fi nga xam ne bët bu set jaam yi man dañ cee gis ay ay ay kaawteef ak i karaama ak i xarbaax yoo xam ne ba léegi yàlla koy xaral ay jaam ci alquran jooju wa mawliduhu juddoom bi bu la neexee waxal ne mawliduhu def ko ne zamanu mawlidihi yawmu mawlidihi bu la neexee nga wax loolu bu la neexee nga ne mawliduhu makaanu mawlidihi baat la boo xam ne nangu na nekk zarfu zaman nangu na nekk zarful makaan nangu na nekk masdar mimi wa mawliduhu aazam bihi aazam bi mawlidihi maa aazama mawliduhu amul lu gën a màgg juddu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam juddu boobu nga xam ne ci la yàlla gorelee doomi aadama ci jaamu lépp loo xam ne duut yàlla tabaraka wa taala juddu boobu amul dara lu ko gën a juddu boobu nga xam ne bam feeñee addina yëpp xam nañ ne gan am na addina yëpp xam nañ ne gan am na benn buur fanaanu ci kaw lalam buur yëpp seen lal yi rëng-rëng nañ bañ xam ne kii ñëw lim rek moom mooy palte gi nga xam ne mooy palte yi dëgg-dëgg muy gëm yàlla topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam safara yi nga xam ne faari seen ko doon jaamu junne ji at safara jooju fay na أيوان كسرى هل تهاك وأن زرى لبايوح بروز نبي إن كسرى تقهقرى كسرى أنو شروان جاء محمد وقد أتاك المبدان مبشرا الحمد لله نبقى نبقى نبقى نبقى وقد أتاك المبدان مكبرا xew-xew boobu nga xam ne taaxam Kisra bi toj na fukki tuur ak ñeneen toj na ci xew-xew boobu nga xam ne dégg nga naar furs fay na bu xayratu saawa ñiis na bu xaaba yi nga xam ne ñu ngi doon yëttu xabaari asamaan dox nañ seen digganteeg loolu àddina yëpp xam nañ ne am na xew-xew bu bees boo xam ne bu xew la xew-xew bu mag lu tax yàlla di waree àddina pour ñëpp ku nekk rek yëg ne am na lu xew pour ku nekk di laajte ki ñëw kan la di laajte ñëw kan la parce que ki ñëw kam gani ñëpp la ñëpp dañ koo war a yëg ki ñëw gani ñëpp la ñëpp dañ koo war a yëg ñu doon jaamu xërëm yi dégg nañ seen xërëm yi tudd yàlla ci bés boobu ci mawlid rasulillah sallallahu alayhi wasallam sallam moo wa mawliduhu a'zam bihi mawliduhu juddoom ba a'zam amul lu gëna a màgg bihi ci moom waaye mawliduhu barabi wayam ba ca màkkatim bu la neexee nga ne a'zam bihi moo magna ba yàlla gëñ la aqsimu bi hadha al balad wa anta xillun bi hadha al balad te lolu yalla ngi wax ne yàlla maa ngi wax ne yalla ngi gëñ ci dëkk bi lu tax yàlla gën ci dëkk bi li tax yàlla gën ci dëkk bi yëpp mooy wa anta xillun bi haazal balad ndax yow yaa wàcc ci dëkk boobu loolu tax dëkk boobu foo ba yàlla gën ci dëkk bi waaye njëkk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di wàcc ci dëkk boobu ñu fa daan jaamu ay xëram rek lañ fa doon jaamu ki def dëkk boobu muy dëkk boobu kooku mooy kooku mooy ki màgg kon booy ne màggaay place bi wax nga dëgg boo waxee màggaay ki juddu wax nga dëgg màggaay ki juddu ba nga gis nañ leeri juddu ga gis ko ba cay ba leer yi juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi gis nañ melax yi juddu bi àgg foofu kooku amut ku gën a màgg ak juddoom amut ku gën a màgg ak juddu ki nga xam ne ba wàccee la alquran wàcc amut ku gën a màgg juddu ki nga xam ne ba mu ñëwee la yàlla indi sunna bi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi indi nga xam ne sunna nañ ko jàngee ak nañ ko jàngatee ak niñ ko toppatooyee ak nañ ko borom xam-xam yi xamee nañ xamee la ca ci wax yonent bi xam ko ba xam liñ fenal yonent bi sallallahu alayhi mokkal fen yi sax loolu sax ci kawteef yonent bi sallallahu moo tax wa ulumuhu ay xam-xamam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na ci alquran mu xam ne mooy xam-xam wa kadalika waxee naa ilayka ruuxan من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم القرآن جوج موي روح قمقم موي بلواي سنة موي بلواي قمقمي ظاهري موي بلواي خمخمي باطني موي بلواي خمخمي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم nga xam نحن ci xam-xam نحن nga نحن نحن biñ koy am xamuñ kimiya نحن na xamuñ kimiya xamuñ xisaab mënuñoo defar ay avion mënuñoo defar loolu yépp waaye xam-xami alquran bi ñu amoon ak njubam alquran ci benn jamono ilif nañ ci àddina lépp ci loo xam ne nii matut genn waa limaas genn waa moo tax wa ulumuhum ba tey azim biha min ulumin amul lu gën a màgg xam-xam boobu nga xam ne mu ngi ballee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey xam-xami góor lum lu mu bëri bëri bëri bëri bëri mu ngi jugee rek ci xam-xami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa israuhu ak rañaanam li rañaan gi nga xam ne moom mu lay làmboo lañaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dëgg-dëgg mbóot la la bàyyi wax sirrun sara bi sirri للسر وحده ولم يكن إلا الحق والسر laahutu rañaan googu lam làmboo ci ay mbóot nga xam ne xefe xip yonent bi dem na ci baytul maqdis dem na ci juróom-ñaari asamaan yi dajee nag yonent yi muy dajee yàlla wàccee ci moom julli mbóot gi nga xam ne moom la julli lamboo mbóot yi nga xam ne moom la rañaan googu lamboo fitra yi nga xam ne jàngee nañ ko ci ba ko jibril indilee këll meew ak këll boo xam ne sàngara daf jël meew jibril ne ko tànn nga fitra ne sàngara si sa xeet dootuñ jub ba mukk mbóot yooyu nga xam ne moom la rañaan googu lamboo dajeeg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama dem na ba qaaba qawsayni aw adnaa dem ànd ak ba nga xam ne jibril nee na ko bu ma demee lu tolloog benn pol rek dana lakk comme ci góor yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ko wax ne ko fii xarit dana fi bàyyi xaritam wax ne moom bu demee rek dana lakk xam nga ne péeb yàlla bi dëgg-dëgg ki lay ànd ak yow ki lay ne dafa bugg àgg ci peeb yàlla bi doo dugg ci peeb yàlla bi lu may fakk nga ko fakk nga sa bopp fakk nga sa ndey fakk nga sa baay mbóot yooyu nga xam ne moom la rañaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa lëm gis ca rañaan ga la ko yàlla wan dugg na ca aljanna génn ci aljanna dugg gis safara gis aadama ak doomam yi nga xam ne nii dañoo texe ak ñiy texee di ak baytul mahmur ñu koy wër ci bés la rañaan googu lamboo rañaanee makka dem baytul maqdis dem jugee baytul maqdis dem ba ci xaabu xawsayni aw atina bàyyi na mooy julli ida qumta min baadi rukui murattilan wa tasjudu ida qumta min baadi lwudui murattilan wa tasjudu min baadi rukui muazzami faqad tuwiyat anka almasafatu jahratan وصلت إلى المحبوب كبر وعظمي صار المصطفى ليلا ووافى بخمسة عرجنا بها والفضل للمتقدم bàyyi na yonent bi guddi la rañaan guddi kay mooy barabi mbóot kon kay nga xam ne israaw daal mbiri mbóot la bàyyi ne ndax soppe dajee soppeek soppeem dañ ciy taamu guddi lu tax ñu ciy taamu guddi ñëpp nelaw nañ kenn yëgatut ñii bëgg xëy suba pour liggéeyi ndax xaalis bi ñu am ci suba moo tax ñii nelaw ñeneen ñi naafile nañ ba sonn ñii nag nga xam ne seen gisee googu ñu bëgg gisee ci guddi googu moo leen jaral danañ toog ba suuf sedd ba ñëpp nelaw ñi door a dajee boo déggee loolu da nga xam lu tax bàyyi toujours mu bëgg ci waxam yi ni wax ne wajirati niyaamun wajafni kalmadaani bi maxrama sama dëkkandoor yépp nelaw nañ ndax bu xaaji guddee ba lépp dal ba nga xam ne bu soppee soppeek soppe di deeyoo dara du lu leen di tànqal dara du fa nekk loolu bàyyi jàpp dëgg-dëgg jàpp dëgg-dëgg